ah non lii ngeen dama koy filmé. laa ilaaha illallaah. yéeme na de ah. oh oh oh. laa ilaaha illallah. xoolal Fallou di jooy moom tamit ndeysaan xoolal Fallou di jooy oh. Omar kii ngeen jëlal numéro. xalu mongol xalu la ilaha illallah xolo Fallou di jooy moom tamit ndeysaan xolo di jooy